dugg njaaw Bambali mook jéggi siraat sorewul. tey boo jëlee ko Kaffrine war a dugg njaaw Bambali pour nga traverser pont bi diggante njaaw Bambali ak pont bi à tout moment nit mun na fa décédé. nii may wax ak yow suñ ma woo ne ma nit day na fa du ma ko weddi. parce que yoon bi dañ fi def benn pont pont bu ndaw la même ñaari oto munuñ munuñ jàllandoor même moto ak seret sax munuñ jàllandoor. te pont bi fi mu ne jëfandikoo ko wóoratul. lu gën a grave mooy pont bi actuellement barrage yi ñu fa defoon comme repère sax barrage yi léegi dafa dam pour nga traverser da ngay raasaatu ba jàll imagine toi foofu nga jaar fa guddi. situation bi nag yàgg na te bakkan yi fay rot bari na. depuis dix ans chaque année dinañ ñu fa tàgg quatre personnes wala cinq personnes lu mu dee dee benn nit moom dina fa faatu ren maa de si ñaanaguñ ko yàlla mais à tout moment mun nañu arrivé. bu nawet dikkee xel yi dootul dal. mooy yow da nga fekk ndox bi jàll mais bu tawee dëgg-dëgg pour nga gis sax foo jaar da ngay raasaatu ba jàll maanaam lu gën a dansé noonu si àdduna amut ñun dañoo jàpp ne ñun est-ce que ñun ci Sénégal lañ bokk sax. foo jaar sax ba dem ca poste ba santé bi faju yi jafe na tamit. dëkk bi dafa am poste de santé bu mag parce quatre-vingts village yoo xamante ni benn poste de santé boobu la ñu yaakaar plus de chaque chaque jour dina recevoir plus de cent personnes. boo weddee mun nga laaj ku la neex léegi nag ñooñu pour nga jaar fa problème la léegi kenn ñemetul dem foofu ci côté côté Kaffrine pour ñëw faju fan la ñuy dem fajoo. souffrir rek dund lu métti. Njaaw Bambali problème yi fa nekk bari na ci wàllu ndox ak yi ni mel ñuy woo autorité yi ñu gëstu leen Njaaw Bambali nag ma nga nekk ca commune bu jamagaajo arrondissement bu Kete Kete région bu Kaffrine.